محمد جمله الإله ببهج لا إله إلا الله محمد جمله الإله ببهج لا إله إلا الله حسن بن عبد الله يسبي القلب وجوده يكفي الأذى والتلبى مد له بهجته البديع هاد له قد طهر الشريعة محمد مثاله ما وردا فيما مضى وأبدا لن يردا sëriñ bi moom bi mu ñëwee boolewu feeg dara ak boroom fiñ ko gisee ba fiñ ko noppee gis gannaaw nag noo am tawféex yi sunu borom boole nag moom waru noo rax dara ci lim nu fi bàyyee bismillahi asalaamualeykum wa rahmatullahi taala wa barakaatuhu mbokk yi ñuy seetaan ñu ngi fii ci Touba fukki fan ak juróom-ñett ci rajab dëppoo tey jii ak ñaar fukki fan ci weeru février 2022 ñi ngi fii ci Touba kër sëriñ Abdou Samad Mbacke moom Serigne bu Mbacke moom Xaadimu Rasuul sëriñ Touba. Euh, li ñu fi tax a toog tey jii nag ndigal la loo xam ne mu ngi tukkee ci sëriñ Abdou Samad te Cheikh Mouhamadul Mountakha Mbacké gërëm ndigal loole yeesal ko ana li ñu tax a jug moo di ubbi bunt waxtaan woo xam ne ñu ngi koy sukkandikoo ci waxtaan wu yaatu wi nga xam ne Cheikh Mouhamadul Mountakha Mbacké amal na ko ci fan yi weesu ak ñi nga xam ne tey jii ñoo yor lu ñu tuddee administration locale ci dëkk bi mooy lu jëm ci mairie yi waaye waxtaan wi nag euh, li tax ñu fas ko yéene jëfandikoo ngir sukkandiku ci moo di dafay waxtaanub soññee waxtaanu xam-xam ak waxtaanub yeete loolu moo waral kon tey ma fas ko yéene ànd ak sunu mbokk yi nga xam ne ñoom laa àndal plateau bi muy Serigne Saliou Mbacké moom Serigne Amsatou Mbacké moom Serigne Chouaïbou euh, moom moom moom Sëñ Abdou Lahat euh, ak docteur Khadim Bousso ma xam ne bu ñu neexee wax docteur bu ñu wax imam te gëstukat la chercheur la ñëpp xam nañ ko ñoo ma féete ndeyjoor euh, Serigne Ahmadou ñaan moom il est commissaire aux enquêtes économiques waaye njëkk loolu dongob daara la bu xam ne moom itam ci tarbiyatul islaam lañ ko xam ak yoonu murit muy gëstukat ñu ànd ko itam ak sëriñ Mouhamadou Lamine Diouf moom ñëpp xam nañ ko ci wàllu xam-xam ak ak jàngale ko ak gëstu ci lislaam rawatina yoonu murit euh, damay njëkk def tour de table wala buñ ko mënee wax euh, tour de nat boo xam ne jublu gi mooy kenn ku ci nekk nuyoo waaye wax itam ci waxtaan wi nga xam ne déglu nañ ko ana ban tomb la bëgg moom ñëw ci gëstu ji tomb yi bari nañ li nga xam ne nag moom lañ bëgg ubbi rek mooy am na loo xam ne moom diggante tàmbali ba ba fa mu mujjee mooy lu ñu tuddee fill conducteur la sëñ Muntaxa wax mooy dëkk bii di Touba ana lu ko sanc ana ci nun ko sance ana lu ko tax a jug sëriñ ba mag bii nu yaakaar muy sëriñ tubaa ana lu ko taxoon a jug muy boromam dong te borew ci leneen ana ñun ñii ko yaakaar lu nu war ci moom loolu moom mooy fiir conducteur bi am na nag ay bànqaas yu bari ci am kon maa ngi koy ubbee ak sëriñ Saliou Mbacké moom suñu am satu moom si Abdoul Ahad Mbacké mu nuyoo wax bunt bi nga xam ne bëgg na koo tàmbali ginnaaw ga nag dañ ci dikkaat bu soobee yàlla aouzu billahi min asheytaan rajim <coughs> bismillahi arrahmani arrahim والصلاة والسلام على الهادي الأمين سيدنا ومولانا محمد الأمين وعلى آله وصحبه وخير خدمه وأمته أجمعين bokki jullit yi ñuy seetaan yëpp ak fu ñu mën a nekk ci àdduna bi ñu ngi leen di nuyu di leen ziyaare bu baax di leen nuyoo ci barab bu tedd bi nga xam ni mën nañoo wax ni daara la di kër Cheikh Abdou Samad moom Serigne Souhaïbou mel ni tey jii ni ko sëriñ bi waxee léegi li waral jotaay bi jàngat tuuti rek loo xam ni dafa ñeel mboolem jullit yépp ndax jotaay bi ku mel ni Cheikh Abdou Samad Cheikh Mahamadunil Muntaxa da koo jox ndigal ni ko lépp loo gis ba sam xel nangu ko muy lu rafet boo ko defee àndina ci ak yow ku ne xam na ko ci defar lépp lu nar a yàqu ak islaahu saatil bayni lu yàgg ci moom la ba mboolem koo xam ne am nawleem nga nangul nga ko ko reconnaître nga loolu ba tax na fépp foo xam ne yaakaar na ni lu baaxa nga fa wala képp kum gis mu jàpp ni mën nga amal njariñ société société bi walla ak tarixatul muridiya dana la xaj ci jéem laa jéem a namm sam xel ngir liggéey loolu loolu nag moo fi dajale bokk yii mu tàmbi nag Cheikh Mouhamadul Bachir mu Serigne Abdul Xaadir gane si woon ko yandu si yandu si fi tey jii bokk yëpp daje fi mu ne segam loolu am na te am na xew-xew boo xam ni xew na mooy discours Serigne Mountakha bi kon ne xam na ni yonent bi sallallahu alayhi wa sallam dafa waxoon ni wa ma aataakum rasulu fa xuzuhu wa ma nahaakum anhu fantahu na fa neen fu mu waxewaat ni kuntum xayra ummatin uxrajat linnaasi tamuruuna bil maarufi wa tanhawna anil munkar yéen day yéenay ngën gi xeet bu ma mos wàcc ci kaw suuf waaye loolu dafa li fi yëg yéen ngi digle lu baax ak di tere lu bon kon boroom xam-xam yi dañuy wax ni euh, al xukmu yadooru maa al illa wujudan wa adama maanaam li fi yëg ñi ngi digle lu baax di tere lu bon ñoo gën ñëpp waaye loolu saa suñ noppee bàyyi digle lu baax tere lu bon bu boobaa dañuy yées ñëpp ndax Seydina Omar dafa waxoon ni kunna azalla xawmin fa ahazana allahu bil islaami ñun dey ñoo nekkoon ñi gën a torox ci kaw suuf yàlla tere lañu lislaam saa suñ fi bàyyee lislaam rek dañuy delluwaat di gë di gën a torox kon rôle boobu moo tax Cheikh Mouhamadunil Mountakha wax wax ju yaatu comme ni nga ko leerale léegi bokki taalibe yi fas yéene ko jàngat ngir jariñoo ko kon dañu waxoon li sëñ bi joxe woon ndigal mbokk yi dëppoo ci ni naa ubbil eh, al imam wala docteur sëriñ Xaadim Buso ngir mu indi ci ay leeral yu am solo loo ci wax baax na boo nee al imam baax na boo nee docteur baax na ndax docteur ba mu xewee yàggut bu njëkk imam lañ daan wax imam Abu Hanifa imam Hanbal ndax imam du caagin mooy kay jiite ca jàkka ja yooyu déedéet mooy ki nga xam ni boroom xam-xam yëpp reconnaître nañ xam-xamam mu taxaw ca kaw minbar ba di ubbi nit ñi ci ay àttee lislaam bu njëkk boo nga xam ne ay diplôme amagutoon bi ñu demee ba diplôme am nag ci lañ tàmbalee wax ak docteur nangam docteur Youssouf Xardawi kon nekkoon na imam ca Amérique New York waaye muy boroom xam-xam euh, doon koo xam ni sëñ Mbacke Bousso mooy maamam kon nag xam na sëñ Mbacke Bousso ci moo nekkoon bibliothèque gu tarixatul Mouridia ba naga ni ak njabootam ñooy doxal lu ci ëpp lu jëm ci wàllu xam-xam ñu xam ko it ci défendre ak tarixatul Mouridia ci wàllu xam-xam kon buñ toogee moom dañ koy bàyyee mu jàngatal ñu. li nga xam ni moom la ab taalibe war a dégg ci ci ci ci waxe ab sëriñam ndax ab taalibe dafa am fuñ ko tënk sifaatu saadixil muridi bi ixtisaar arbaatun nazamtuha xaw faxtiraar assidqu fii mahabbati cheikh abad summa imtisaalu amrihi xaytu warat loolu nag moom moo ñu fi bàyyi tey al imtisaalul awaamiri kon dinañ ko jox mu jàngatal ñu euh, ci lu gàtt incha allahu taala bisimillahi tafaddal maskura bismillahi rahmaani rahim alhamdulilahi rabbil alamin wasalaatu wasalaamu ala ashraf al anbiyaai al mursalin sayidina muhammadin al makin wa ala alihi wa sahbihi ajmain wa man tabiahum bi ihsaan ila yawmi ddin asalaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakatuh mbokki jullit yi fi teew yëpp ak ñiy déglu ak ñiy seetaan bañ leen nuyoo ci nuyoo bu lislaam bu tedd bu màgg boobu di ñaan ngërëm di dolli ko ci suñu sang bu tedd ba Cheikh Ahmadul Xadim Eh, di wax ni sëñ Saalix jataay bi taaral nga ko ba pare ndax sa kàddu yi nga ubbee xanaa dafa dugg ci bunt ba siru naa laa am fu si wala kaana bihim xasaasa rek waaye luñ fi mën a wax rek mën ngaa wax lu ko gën a kawe luñ gën a mën a dégg lu gën a mën a jariñe ndax luñ xam rek xam nga lu ko ëpp wax dëgg yàlla di nuyu eh, kilifa yi ñu ko seqal bu baax a baax leen ndokkeel tamit ci jataay bu mel nii ndax fépp foo xam ne dañ faa toog di fa jàngaleen te jàngaleem sëriñ bi rek jotaay la boo xam te ni tawféex la yoo xam ne du ràpp mukk wax yi sëñ bi nag li tax mu am solo ginnaaw ba ñu santee si bi samat ci tawféex ji mu def mbo dajale gi mu dajale nit ñi fii te jamono bu nekk ci lu mel noonu lay lay doxe fexe ba lépp lu mën a jëriñ nation bi rek ak tariixa bi mu koy xëcc muy gën di jige Euh, suñ boroom subhaanahu wa dafa am num bindee jamono te mooy la mu waxoon waa saba di wax xéewal yi mu leen doon xéewale te la gën a rey ci xéewal yi mooy baldatun tayibatun wa rabbun xafuur réew moo xam te nii bekkoor war na faa mën a am ndax dara du fa sax ab dessert la amul amuñ menn mbell moo xam te nii Eh, amal na leen njariñ bañ na ko ba lam leen may ci ay xayawaanaat gileem la ndax gileem yàlla tàggatal na ko muy mën a lekk lu wow kon loolu day firndeel ni foow la woon waaye muy leen nag yujbaa ilayhi samaraatu kulli shay li muy ñàkk ñàkk li muy bekkoor bekkoor lépp lu baax fa la jëm wi tey du sax màkk waaye fa la gën a yomb waaye saba tamit mu doxale noonu ak ñoom neen baldatun tayyiba wa rabbun xafuur réew moo xam te ni am na sécurité am na lim soxla lépp ci ay mbell ak buur boo xam te ni day jéggale boo defee lu noonu man laa jéggal bu guddi jotee mu tàllal loxoom naan ana ñi mayoon yàlla ci bëccëg gi bu bëccëg jotee mu tàllal loxoom naan ana ñi mayoon yàlla ci guddi gi mun loolu ku ko am ci am réew nag war ngaa fexe ba du yàqu loolu nag la Cheikh Mouhamadou Mountakha xam moo tax eh, fu mu toll du tay du sonn ci di jubbantiwaat ñim jiital xam ngeen nag ni ko suñu saar yi waxee léegi nii al amru bil maaruf wa nahyu anil munkar muy digle lu baax di tere lu noona boroom xam-xam yi dañ ca yàgg taalif ay téere yu baree baree baree bari yoo xam te nii ci jamonoy e, taabion yi la commencé woon ndax xëy na amoon na jamonoy yonent bi alayhi salaatu wasalaam yuñ daan def yoo xam daaw doon noona waaye yu bari bu amee dañ koy faj fa saasa ndax booba e, lislaam ràppul woon ndax bu yonente bi gisee lu noonu day taxaw daal di koy wax su ko waxee saxaaba yëpp ay koy pratiquer mu daal di continuer waaye bi jamono ràppee nag suñ boroom ci boppam yonente yi sax bu leen Musaa ni ba seen mission ñu lottu ca daf leen di dooleel yeneen yonente bu kazzabuhuma fa azzazna bi saalis day yónni bi yonente ñu weddi ko mu dooleel kooka ci keneen ma tax ba mu yónnee Seydina Musaa alayhi salaam mu ñaanoon ko ni ko nag ma may kattan sama rakk ji na ko dooleel mu nekk ab yonente moom it ànd ak man ndax ñu mën a dégg la may wax mu defal ko kon saa yu jamono ràppee rek suñu borom indi ñoo xam te ni dañ koy jéem a defar waaye ñi ko daan defar nag ñu ci bari dañoo échoué seen mission échoué ga nag du ak ñàkk jàmbaar ci ñoom mooy la antara waxoon rek ni fa sakkaktu bi romxil asammi siyaabahu laysal karimu alal qanaa bi muharrami nee na bari na jàmbaar yu ñëw ci guerre bi su ma ko jàppee ba jam ko sama jaasi yére yéere ya dana xottiku jaa yaram wa xottiku daal ni loolu nag bu tax ngeen jàpp ne darul jàmbaar jàmbaar dëgg ci jaas yi lay faatoo kon ñoom ñi nekkoon ci mission yooyu buñ jàpp ni dañoo échoué échoué wuñ ay jàmbaar lañ ndax jóg rek am pas-pasu dem ci mission bi jàmbaar rek koy def euh, sëriñ bi nag bi mu ñëwee moom mission am da ko réussir ba pare ginnaawam réussir tamit ndax euh, réussite bi fi mu njëkkee mooy ba mu jógee di dem rek ndax ku jóg di dem rek réussir nga waaye nag yàlla defal ko mu dem dellusiwaat indaale sérité bu duun te ci lañ nekk di ci jariñu ba léegi nii mooy wax ni waa Màkka boo leen di wax boo ci amee xarit di waxtaan ñoom dañ naan la lii fi nekk ñaanu Seydina Ibrahim la waaye ñaanu Seydina euh, Muhammad alayhi salaam ak seegul sax far ma ne kon bu agsee nu muy mel kon lii fi nekk mën nañ ni daa ñaanu ñu jiitu woon sëriñ bi la waaye sëriñ bi moom mbiram sax mën naa ne agseegut ndax lim defal boromam maanaam li ñu am li muy neex neex jàpp naa ne bu dee ak ñaanam it génn ci ay ay ñaanam dong lay doon waaye lépp moom bu agsee kenn dootu amati dara la naqari loolu nag suñ muntaxaa xafisahullahu wa raahu eh, niñ ko waxee woon du tàyyi jamono bu nekk di yeete ak di jàngale ak di waxtaan Eh, ba muy tabax université dafa am wax ju ma waxoon joo xam dafa ma marqué ba léegi dafa waxoon ni damaa bëgg Touba mel ni Basra wala Kuufa wala a Munawwara yaakaar naa ku dul ab jàng kuy ab jàngkat da nga xam dëkk yooya naka la meloon ak nam nekkoon capitalu lislaam ci ay jamonoom ndax boo xoolee borom xam yu mag yëpp ci dëkk yooyu lañ jógee saxaaba yi tamit gis nga madina googu lañ yaroo fa lañ màggee fa lañ defee seen lépp ba tasaare lislaam mu tasaaroo ana loolu lépp ko lan lañ war a taxaw xalaat ko ci ak génne ko mooy lii fu mu jógee ak lu ko waral ak ëllëg fu muy mujj loolu lu mat a bàyyi xel la moo tax sëriñ bi bàyyi ko xel ci discours am ci discours bi yëpp nag mooy ni ko sëriñ bi waxee léegi nii euh, mooy euh, mission bi la wax direction bi muy jaar mission bi ñu war a dox wax nañu lim doon moom wax nañu tamit ki ko fi indi nañu tamit nu ko fi indee waaye leeral nañu tamit nan lañ ko war a sàmmee ki ko fi indee moom kenn la xamees na ko monsieur Ahmadul Xadim nu mu ko fi indee mooy mu'jiza la miracle la indi gi ndax kenn nit amut ay moyen moyen yëpp munta ëpp aw fas moyen yëpp munta doon dara lu xalima ak daa mu dem ba ñëwaat ci moyen yu gàtt yu tuuti yooyu indi ñu lim ñu indil kon loolu la mu waxoon ne kulliyati mu'jizatun ta'akhkharat loolu rek lay firndeel mooy léppam moo xajisab yonente bi la alayhi salaatu wasalaam loolu nag su amee moom kon moo ko indi kon lan la indi suñ mun muntaxaa leeral nañu ko mooy eh, lim indi dafa defar digganteem ak boroomam eh, sellal ko amu ci benn association maanaam bokkaalewut boroomam ak dara bu wéetal ko wéetal gu mat sëkk muy tawxiid jooju ba mu ko amee nag comme suñu boroom moom it loolu rek la bëgg ku ko yëg rek la bëgg moo tax mu jox ko lii mu ko jox mu indi ko moom dong ci ay mooy yu limité comme ni ñu ko waxee woon sànq kon su ko indee kon ba teg ko ci dëkk bi yaakaar naa comme ko teg ci sa loxo rek war ngaa xam ni am nga responsabilité bu mag a mag a mag a ndax yëf yi wax na ko ci biir discours am nee dafa nuru nguur waaye bokkuñ ndax nguur doole moo koy joxe waaye lii barke moo koy joxe nee na barke nag lu koy joxe mu ni ngërëmal suñu borom warit waanu melaahi akbar ngërëmal suñu borom boo xasee am daanaka lépp day baax ba faw loolu nag moo ko may sëriñ bi kon bu loolu amee kon ndekete mission bi kon rëy na suñu mission bi réy na suñ suñ Lamine rëy na lool war naa tax ñi koy yor bu baax ñu bàyyi xel bu baax a baax suñu mun taxaa boo koy déglu da ngay xaw am ak yërmande ci moom ndax da ngay xam ne dafa comprendre dëgg dëgg dëgg dëgg eh, li nga xam moo war a mën a gaar mission bi ci kanam kenn ku ne ci ñun war naa taxaw jàngat ne buñ demee fii ak téeméeri at yoonu murid nan lay doxee kenn ku ci nekk ñun war naa laaj loolu boppam ak moom lan la mën a def moom ba bu ñu demee ba fii ak ci misaal yoon wi nii muy doxee noonu lay continuer di ko loolu lu mat ab laaj la boo xam kenn ku nekk war na koo mën a laaj boppam kon loolu mooy oluwul eh, himma maam yitte ju kawe yitte ju kawe jooju nag soññ nañu ci ba ci kanam ñu doo kii yaat xam naa incha allah bala maa gën a jël waxtu gën a bari sëñ imaam eh, docteur dafa mel ni ubbi ubbi ubbil nga ñu ay bunt nag yoo xam ne ay bunti waxtaan la yoo xam ne benn bu ci nekk euh, teg nga ko pour nit ñi nga xam ne ñoo ci war a topp ñu mën a am fu ñu ko ba gën a mën a xuus ci waxtaan wi donc indi nga li nga xam ne moom mooy ki sanc dëkk bi ak ak ak ak ak ak ni mu ko sanc ak ak ki ko sanc ki mu doon ak li mu am ni mu ko amee ak lakk ko ko may kon loolu moom leer na waaye wa wa wax nga itam lu jëm ci vision wu Cheikh mun Mountakha maanaam kii projeté vers les cent ans à venir kon kooka moom ba tey ma nga ma nga ca doxiinu ki sanc dëkk bi ndax ki ko sanc 1888 di projeté Jumaay Touba euh, boo xam ne 1925 lañ koy dégg ak ak 26 kon kooka tamit ba tey mi ngi woon ci vision euh, loolu nag ci laa bëgg sukkandiku ñëw ak euh, sëñ Mohamed Lamine Diouf. nga xam ne ñëpp xam nañ ko ci euh, euh, isbu tarxiya euh, sëñ Mouhamad Lamine Diouf sëñ bi ci waxtaanam dafa wax ni sëñ bu mag bi bari na li mu nu fi bàyyil waaye li jiitu ci lim ñu fi bàyyil mooy dëkk bi di Touba dëkk boobu di Touba nag wax na li ko tax a jug waaye bari na ñoo xam ne dañuy dégg yoonu murit waaye dañuy jàpp sax ne xëy na lu nu sos la loolu moom ñaara koy mën a waral benn ñàkk ndimbal wala réer walla ñàkk ñàkk jote ca xam-xam ba ki ñàkk jote ca xam ba nag la koy dimbalee mooy mu jote ca mooy nga fexe ba mu xam nga fexe ba mu jariñu ah, loolee nga xam ne moom la sëñ bi wax ci ki nga xam ne day julli te wala muy jaamu yàlla te xàmmewut farata yi ki sunna la ko ca war ak lañ ko ca nar a yedde ba tey boo xoolee ka xamul sëñ bi ñàkk gee xam ko waral moo waral ñu buggoon ñëw ci Touba jëmmi dëkkub Touba bi ko sëñ bi sañcee la tax mu sañc ko lam ca chartal ak lam ca jublu ak lam ca doon wut ba tax tey jii sëñ bi dajale ay nit di leen wax la leen war ci dëkk bi donte ay administrateur lañ kon sëñ Lamine ñu ubbi benn bunt ci Touba loolu di parce que comme sëñ Ahmadou moom administrateur la danañ mën a ñëw ci comparaison boobu entre le rôle de l'administration ak li nga xam ne mooy vision borom dëkk bi. Euh, bisimilah rahmaani rahim asalaamualeykum wa rahmatulahi taala wa barakaatuhu sëñ Yasane ñu lay dellu nuyu bu baax di ziare sëñ Saliou suñ Xaadim ak sëñ Ahmadou Touba Niane di ziare bu baax sëñ Abdou Samad ci jataay bu am solo bii nga xam ne am na xalaatu ñu amal ko. Euh, di ko jottali euh, nuyoo suñu jëwriñ sëñ Youssou mi jëwriñ daara Hizbut Tarqiyyah te jiital ci ziar yëpp nag Cheikh Mouhamadou daxa Eh, sëñ Assane ngir eh, tontu ci laaj bi nga indi yaakaar naa ku teewlu waxtaan wi dina dégg lu mat juróom benn yoon wala juróom ñetti yoon yoo xam ne Cheikh Mouhamadou Mountakha saa bu waxee ba daaneel danaan dëkk bi de daara la loolu nag di eh, lu lu lu lu mat a bàyyi xel dëkk bi. dëkk boo gis ci àddina dafa am lu tax ñu sanc ko dëkk yi commerce moo tax ñu sanc ko jege gu mu jege géej gi ngir ñu mën a jël marchandise ya fa nekk di ko yóbbu moo tax ñu sanc ko am na dëkk yoo xam ni sax làqu gu ñu làqu ak tata yu fa ne ba bu seeni noonu doon song duñ leen gaaw a jekku ngir ñu mën a défendre moo ñu sanc ko am na dëkk yoo xamante ni la tax ñu sanc ko mooy mbel yu ne ci wet gi ñu war koo jëfandikoo te gis ne lu mu gën a sori gën a metti ci ñoom dem beeg dikk bi ñu def li gën a gaaw ñëw fekk bari bi ñu sanc ko kon dëkk bu nekk nag ba tey ji ci àddina bi tey am na dëkk yu mag yoo xamante ni tey ku amoon xaalis te bëgg topp sa bakkan rek wala nga bëgg a rek wala nga bëgg carte rek danga fay dem hmm. kon dëkk bu ne dafa am lu tax ñu sanc ko Touba nag li tax ñu sanc ko borom dëkk bi moo ko leeralal boppam hmm. moo ne dara indiwuma fi lu dul jaamu yàlla ak liggéeyal yonent bi sallallahu alayhi wa soo doon xool nag ci àddina dëkk boo xam ne jaamu yàlla ak liggéeyal yonent bi sallallahu alayhi wa dundal sunnaam moo tax ñu sanc ko ah, soo soo dee wàññi Touba eh, yaakaar naa du bëri ay moroom <laughs> kon sëñ bi moom loolu la wax. Cheikh Mouhamadou Bachir nag wax ne sëñ bi daan na wax ne li tax tuubaa ma fonk ko mook Daaru Salaam nee na selluk sama yéene ci ñaari dëkk yooyu moo tax. ndax ñëw ma fi ngir dabu suuf mbay ñëw ma fi ngir sàmm ñëw ma fi ngir topp cosaani wala aada yi samay maam lenn rek moo ma fi indi mooy liggéeyal yàlla ndax sëñ bi Mbàkke Kajoor la jóge te woy juróom sëñ Mbàkke Mor Anta Sali moo ko moom ba fa jógee Mbàkke Bawol gi mu daal maam maaram maamaatam moo ko moomoon <laughs> fenn fu ci am na fa droit bu nekkoon sanc fa waaye daf koo bàyyi sanc Daaru Salaam Daaru Salaam doyatul mu ñëw Tuubaa kon moom Cheikh Abdoulaye dafa ni woon bi mu koy sanc dafa ni sefeet bàyyi warab yi xumb yëpp ñëw ci barab boo xam ne manding la moo xam ne ay rabi àll rek moo fa ne ak i garab mu sanc fa dëkk bi tuddee ko tur wu sell muy Touba daal di teg ne xarasaa laaw nee na waxuma yàlla dina ko aar dafa ne aar na ko ba noppi lu am la kon dëkk bi moom boroom loolu la ko sancee Seex Moodu Muntaxa nag taxawaayam tey niñ koy xamee mooy waxtaan wi mu gudd mu gàtt am na ci lu ko ñor loo xam ne bëgg na kenn bañ koo fàtte wala nga jaawale ko mooy xam ne li taxoon ñu sos dëkk yi ba bisub tey jamono du dox ba weddi ko kon nee na daara rek lay doon dëgg la bi fi sëñ bi ne mbaaram la yoroon moom kenn ñu dem ba ittey tarbiya tax ay dongo fekk ko fi bi mu fi jógee it fonkeel gum ci amoon moo waral mu yebaloon ak njabootam ñu dëkk fa waaye terewul nag euh, dëkk la boo xam ne ci wàllu euh, tubaab yi sax euh, dañu waxoon suñu Mourou Moustapha ne ko fii moom xam nañ ni kenn du fi mën a nekk dinañ la may autorisation rek ay ay ay canton ay campement yoo xam ne ñi tabax jumaa ji dañ fay ne waaye su jumaa ji pare dañ koy dajji yóbbu mën na leen waaw <laughs> ndax moom xamoon na dëkk bi li mu doon. kon ñoom jàppuñu woon ne teen bi gën a jege nee nañu juróom-ñetti fukki mètre la woon. Hmm. yoon wi gënoon sori gën koo jege. Euh, yoonu laara ak kayal teggi njaareem jël mbàkki jëm yoonu gën gi néew jëm saalum <laughs> kon jàppoon nañ ne aw yoon du fi jëm kon lenn luy tax ñu jàpp nit war na fi mën na ne amul sëñtuwaa nag moom ne fi sanc ko lépp lu baax lu ne mu ñaan suñu borom ni dana ko ko fi indil tudd jumaa ji tudd tudd tudd daara ji tudd dëkk bu am xéewal tudd lépp kon loolu su dëkk bi demee boo wéttaliku ba nit ñi ñëw fi te la suñu ab waxoon dikk sëñ Tuubaa ne woon ku fi sam xel indiwul sa xel indi dina la fi indi am na ñoo xam ne tey fa ñu toxoo ñëw Tuubaa pëstee fa la waaye am na ñoo xam ne la indi moom seen daal soo moytu fa lañ ko bàyyi ñëw waaye bi ñu fi amee ay fan xam nañ ni yéex nañoo dugg fii léegi loolu nag bi mu amee nag mu bëgg nag saa su nekk suñu xel di dem ci li taxoon dëkk bi borom sanc ko mm. euh, dama ciy jël rek ñett wala ñeenti bayit yoo xam ne yu sëñ Tuubaa bindal boppam la ci xasida gi nga xam ne bi mu sancee dëkk bi hmm. ci xaama wasasin 1888 ci milaadiye moom la bind muy mat Matlabul Fawzayni hmm. ñaan suñu borom ni mu bëgg dëkk bi mel ko kon moom moo tracé dëkk bi ni mu bëgg mu mel moo rëdd ni mu bëgg mu mel moo ko bind ba ku ñëw ne dama bëgg dëkk Tuubaa mu ne la nii laa bëgg dëkk bi mel hmm. ku fay dëkk it nii laa bëgg nga dëkkee fa loolu nag su jamono demoon tey ba dëkk bi am ay gratte-ciel am ay autoroute yoo xam ne ci suuf lay jaar ami ami ami ami ami ami ami ami ami ami ami aéroport am lu ne du tax modernité boobu ak jëm kanam googu mëdd la taxoon ñu sos dëkk bi kon sëñ bi loolu mooy li ko gën a ñor kon boo gisee dafa ne dëkk bi moom dara rek lay doon leneen lu ko dab nag mën na koo dab waaye du tee moom la taxoon boroom bëgg mu nekk ko moom rek lay ne hmm. wax na ni suñu boroom ñaan naa la nga def ko muy dëkk boo xam ne wa daara ixlaasin wa sidixin wa wara wa man bi kon dëkk boo xam ne dëkkub sellal la ak sàmm ak sunna tey sori bi daa kon moom bëgg na li mu bëgg dëkk bi ne hmm. wajjalhu maskana xuruji min zulam di nuuri ak fi an la man zalam hmm. na doon dëkk boo xam ne dañ ciy génne ci lëndam di tàbbi ci leer di dëkk boo xamante ni nanga nga ko fegal képp ku tooñ boromam wala mu tooñ moromam kon loolu lu dëkk bi moderne moderne du tax euh, loolu dañ wajaxnu daba maskana tibaahi li sunnatin laa maskana ibtidaahi na doon dëkkub sunna te bañ doon dëkk boo xam ne dañ ci topp bidaa wa maskan di jaal maskanan mubaaraka wa sayyiri ni saalikan wa naasika mhm. na ko def muy dëkk bu barkeel te nga def moom may ku sóobu ci jaamu yàlla di ko santaane di di ko di ko digle kon sëñ bi <laughs> loolu la bëgg dëkk bi ne loolu nag soo fi nekkee administrateur xamal ne priorité boo am lii borom dëkk bi bëgg ci dëkk bi moo ci jiitu soo nekkee conseiller soo nekkee chef de quartier soo nekkee borom kër soo nekkee sax waajoo xam ne yilifoo kenn sa mbubb ak sa kaala nga yilif ak sa ñeenti borne nga xam ne lii mooy sart yi borom bëgg ko nekkee ci dëkk bi loolu nag lu dëkk bi sori sori lu mu avancé avancé lu mu lu mu lu mu lu mu moderne moderne lii euh, mënees na ni tey jii loo gis day am ruu lii moom maanaam mooy ruu dëkk bi mooy li taxoon borom sanc ko muy dëkk boo xam ne dañ fay jaamu yàlla di fa santaane ak njub di ko fa digle moo tax sëñ bi ci waxtaan wi mu ne xam leen ne Touba ku fi nekk da ngaa war a doon modèle maanaam nga war doon koo xam ne foo dem dañ naan kii de tuubaa la jóge nga xam ne kon nituk tuubaa sax <laughs> am na nu sëñ bi bëgg mu mel ku dëkk Touba am na nu sëñ bi bëgg mu mel kon loolu lépp du tee nag sëñ bi dafa waxoon ne dëkk bi euh, bi mu koy soog a sanc dafa waxoon ne lépp lu ngeen soxlawoo di ko uti Ndar wala ngeen di ko uti Ndakaaru bu ngeen ko soxlaa tuubaa ngeen koy uti ndar ak ndakaaru gi sëñ Tuubaa doon wax moo doon capitalu koloni bu Sénégal ak capitalu Afrique occidentale française juróom-ñetti réew yi France yilifoon ci Afrique sowu jant muy muy Sénégal di di di di di Soudan di Niger di di Côte d'Ivoire dëkk yooyu yëpp seen capital moom la ñu dajale mu nekkoon ndar sëñ sëñ sëñ ne lu ngeen soxla daan ko wuti ndar wala wala ndak wala ndakaaru diggante bu Tuubaa ngeen koy utee mm. <laughs> tey jii waa Dakar. dañuy jógee ndakaaru paas ñëw Touba di fa ute si loo xamante ni fa lay gën a yombee ñu dëkk nag diggante Louga ak Kaolack ak yu ni mel moom taxul may wax kon ñoom daanaka Touba mooy seen ñaareelu euh, approvisionnement ci wàllu marché te loolu taxul woon dëkk bi jóg barkeb sëñ bi nag moom ni ko Cheikh Mountakha waxee nee na moo yemul fenn kon barke boobu dina dem ba ba tasaaroo ci lépp waaye lu mu tasaaroo tasaaroo ak lu mu yaatu yaatu yaatu sëñ bi day bëgg ñu ci dëkk bi moom bañ a fàtte li fi indi woon borom dëkk bi bañ a fàtte li taxoon ñu ci dëkk bi bañ a fàtte li nga xam ne mooy li mu sartante woon ak ñi nga xamante ni dañuy ñëw ci dëkk bi fi may daanalee nag mooy moom taxawaayam lii muy fàttali woy juróom yu baax yi tedd yi ko jiitu woon loolu lañ daan fàttali kenn ku ne dégg na euh, Cheikh Modou Moustapha ci ni nga xamante ni ni la daan soññee ci dëkk bi ngir bëgg ñu warmaal ko Cheikh Mamadou Fadal noonu sëñ Abdoulaat mi nga xam ne ñu ëpp ci ñun euh, moom la ñuy jamonoonteel donte ay tànk lañu boobu waaye gis nañu engagement yi mu jëloon ci dëkk bi ak fi mu ci tegoon bakkanam ngir bëgg li fi sëñ Tuubaa bëgg di fi am Cheikh Ahmadou Mountakha bi mu ñëwee it loolu la yeesal kon moom euh, la moo waxoon ne li ma fi bàyyi rek mooy euh, sëñ sëñ Xaadim wax na ko léegi ci waxam yonent yi suñu borom yónni woon bu soññee bi méttee sax ba gars yi ne waaye yéen sonn ngeen di yàlla ji leen di liggéeyloo xanaa li mu di fay bari na lu mu leen dik ñu leen ñu dara nekk luñ ci inil uridu ilal islam mastata'tum wa ma tawfiq illa billahi alayhi tawakkal wa <laughs> dara nekk luñ ci dañ leen bëggal jàmm rek kon bi moom loolu la ñu bëggal loolu loolu la ñuy woo waaye ñu xam ne nag euh, borom dëkk bi moom di seexul xaddim su nekk ñi ko fi nekkal ñoom seen itte sëñ monsieur moom wax na ko nee na sëñ bi yim ñu bàyyeel dara gënu cee rëy dëkk bi hmm. dara gënu cee mag dëkk bi ku ne gis moom taxawaay yi mu taxaw kon ñoom euh, yem fàttewuñu la taxoon sëñ bi sañ ci dëkk bi waaye itam seen itte waxtu wu nekk mooy di ko fàttali nit ñi suñu demee ba melow jamono bëgg leen cee génne wala melaw jamono fifati leen wala ay xew-xew am ba ñu defee ne ñoog ñëpp yem ñu xam ne nag tuubaa dëkk la ci biir Sénégal la ne waaye bokkal ak fenn am na lu ko suñu borom jagleel ci xaasam ci barkeb sëñ Tuubaa waaye it am na loo xam ne it ci wàllu yoon ni muy doxee dëgg la dëkk la euh, agglomération la euh, deuxième ville la waaye nag euh, ba ci sax ñi nga xam ne yàlla dogal na ñoo yor atte réew mi sédd nañu war ma yooyu sëñ ba am na particularité boo xamante ne jox nañ ko kon loolu yëpp bokk na ci yi nga xam ne takk naa ko ci ci waxtaanu sëñ bi. jërëjëf sëñ Mouhamadou lamin Diouf ci tënk yooyu nga xam ne indi nañ ko. Euh, bay bay abiyaat yooyu nga wax am na ci boobee nga xam ne daanaka sëñ bi daf caa def bunt bu rëy muy jëm ci barkeb dëkk bi wa maskani jihan maskanan mubaraka moom loolu moom maanaam wax na ne euh, nguur doole moo koy maye euh, maanaam nguur doole lañ yor wax na itam ci biir wax ja am nañu sañ-sañ bu leen may la ñuy jëf waaye nag ñu lii nu yor barke la tudd waaye barke boobu ngërëmal yàlla koy maye waaye ngërëmal yàlla boobee nag dafa am lu waral luy tax la nguur sañ yow nga doo am loo xam ne yow doo ko sañ yow moo tax mu doon def kon séparation des prérogatives diggante ñi nga xam ne dañu bokk ànd ak ñoom ci dëkk bi parce que ñun ñëpp ay sénégalais lañ waaye mu am nee xaas nag boo xam ne moom ñi nga xam ne dañoo ne ci dëkk bi tey wéyee ci ndigal ñoom loola moom ñoom lañ ko jagleel loolu nag am na diggante bu sew bu ci sëñ bi indi mu jëm ci lu jëm ci wërsëg la wax ne wërsëg ak barke wuute nañ wërsëg moom ñëpp la ko yàlla defal kenn ku ne ak la la di wërsëg rek barke nag dañ la koy fàggul dégg nga kon sëñ bi ñaan na ko suñu borom sëñ Abdoulaye Mbacke bi wax ci waxtaan dafa wax ne li sëñ bi ñaan ci mat la bu fay yëpp suñu borom da ko defal ba noppi kon la nit ki di amee ci dëkk bi lu yaatu yaatu yaatu yaatu bu mu tax nga fàtte la la ko may muy sëñ bi loolee ko may nag sëñ bi dafa wax ba tey ci lu matlabul fawzayni waj lub lahal xayra min jihaad as sitti wak fiha anil afaati waaw yow yàlla sunu borom ñaan naa la nga xëcc wépp yiw ak lépp lu baax ci juróom benn gox yëpp jëmale ko sama dëkk bi di Touba loolu nag su xasee am lu waay di amati ci dëkk bi rek réflexion bi mooy nga laaj sa bopp ndax parce que dañu laa nome wala dañu laa fal ba tax lii dëkk bi am ko wala da ngaa ñëw tàbbi ci barkeeb dëkk bi nu mu amal boppam la waaw diggante boobu nag moom kon damay bàyyi sëñ Ahmadou en tant que administrateur en même temps xam na aussi sëñ bi ni mu respecté aussi hiérarchie parce que sëñ bi wax na lépp loo xam ne lu ñu jox nit la ci cër rek nañ ko ko nangul waaye du tee nag nee na nga xam sa bopp nag yow waaw donc léegi nag administrateur nag bu ñu woo di ko leeral lu jëm ci dëkk bi kon dafa wax ne maanaam sëñ bi am na sañ-sañ bi ndax ndax ko sañ ba mu koy sañ administration amatul. kon suñu Ahmadou diggante rôle rôle régalien de ki nga xam ne fal nañ ko mu war a liggéey ci biir dëkk boo xam ne ka ko sos dafa am charte bu mu teg ba noppi. asalaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakaatuhu maa ngi nuyu ñëpp di ziare kilifa yi fi teew yëpp sa taaral jataay bi di jéggulu ci kàddu yi ñuy rotal seen kanam mu xaj na ndigal gi mu doon moo tax ñu di ko jëfee. di eh, nuyu ñu ma seqal plateau bi eh, sëñ Xaadim eh, sëñ Saaliw leen di nuyu bu baax baax di leen ziar yow sama mbokkum daara ak sëñ Lamine Diouf ñun ñett dafa am lu ñu boole mooy daara Hizbut Tarqiyyah kon noo ngi leen di ziare bu baax dafa mel ni nag sëñ Lamine fi mu daane sof fa ay wax luy xaw a jafe la ndax mel na ni e, wax ji e, li ñu li mata wax li ci ëpp wax na ko mooy fàttli na anam yi nga xamante ne moom la sëriñ bi sañcee dëkk bi man dama koy joxe ci xeetu métaphore rek koo xam ne dafa nekk ci manding woo xam ne faw nit ñi xool tey lu mel ni forêt Gabon bi ni mu tuuf nu mu mel ni mu mel ci garab kon ñu jàppee Touba dëkk boo xam ne moom ba mu fiy dugg ay garab neen ay garab dong nga fi ne ak ay rabwal te yaakaar naa ni ñun toog nañu am ziyaara sëñ Saaliwu Mbàkke di nettali gaynde gi ba muy dàq njaay àll gi foofee ci këram nga waxtu woowee ca foofee ñu toogoon loolu muy misaal ni waxtu jamono yi mu fii ne moom dong a fi newoon waaye bu ñu delloo ca mbind ma dañuy gis ni dafa commencé rotal ay baatuk cant dane alhamdulillahi alkarimi zilminan alastixaali bi furóodin wa sunan mel na ni farataak na moo ko fi indi woon comme ni nga ko waxee am na lu mu ba ginnaaw coow yi lu mu gën a rëy ci mbooloo mi di raj rajloo ci ginnaawam rek mu daal di doxaat yeneen jéego demaat sanc feneen ba ci Daaru Salaam ba ba muy dugg si fii dal di sant yàlla daal ci teg ni chakartuhu noo ngi koy sant moom yàlla li annahu qad saaqanii ndax wommat nanu li watanin bihi nafa ni ci dëkk boo xam ni bañ ci duggee ci lañuy ñu gàllankooru jaamu yàlla kon mel na ni dara taxu ko woon sanc dëkk bi lu dul jaamu yàlla kon bokk na ci message yi sëñ Mouhamadul Mountakha di fàttali mooy ni sëriñ bi moom commerce indiwu ko fi woon sëriñ bi moom jaay suuf indiwu ko fi woon sëriñ bi moom euh, transport indiwu ko fi woon mennu métier moo xam ne nit a nga koy def ci dëkk bi indiwu fi woon sëriñ bi kenn ku ci ne nag bu fekkente ne am na lu la fi indi it sëñ bi mu ngi lay fàttali ni na nga xam ni li la fi war a indi lee da nga koy yóbbaale dong loolu loon di def waaye lii mooy lii tax nga ñëw wettali si sëriñ bi ci dëkkam kon loolu mel na ni nit nag man damay faral di wax naan wa ma zalamuhumullah walakin kaanu anfusahum yazlimuna yàlla su ko waxee man sama dégg ci moom mooy yàlla naan man tooñu kenn waaye dafay wax ni man dafa naan maanaam euh, nit du nax boppam nit du nax boppam laa koy gën a laay gën a dégg ci ci ci laay yooyu mooy ni nit na warul nax boppam ndax yàlla naxul kenn kon mel na ni moom bu taxawee ca ratal baatu cant yooyu fetliwaat ko muy cantu cantug làmmiñ gu xol jëmale ko suñu borom ngir gàllankoor yooyu nga xam ne ba mu duggee ci dëkk bi la gàllankoor yooyu dañ xam nañu lu tax mu ñëw fi kon li ñu fi indi bàyyi ñu fi mooy loolee la sëñ doon wax ñu fàttali li ñu indi bàyyi ñu fi muy jaamu yàlla kon ah, loolee lu mat a fàttali la Euh, bu fekkente ne nag da nga ñëw ba tey ci fànnu administration man fi ma koy mën a tënkee rek mooy lu ñu naan contrat sëñ Abdoulaye Mbacke da nga koy dégg mu naan contrat mag yàlla contrat bu ferme la un contrat ferme lii kaana rab bii wana bii yu kaana lii bi maa maha ay bii wa sirri saana lii loolu la wax mooy kon résultat wu contrat boobu mooy yàlla da ko far yonent bi far ko maanaam dañ ko nekkal ñoom ñëpp ci xam ne day ñoŋal ay mbóotam ci loo xam ne day far ay ayibam kon loole ñun itam bu ñu toppee sëriñ bi ci contrat bi ñu lié ak moom hmm, mooy tubaab bi dañu naan c'est un accord de volonté générateur d'obligation mooy man ak yow bu ñu tënkee nag léegi ne dafa am lu ma war kon ñun ana lu ñu war suñu digganteeg sëriñ bi li nu war suñ digganteek sëriñ bi moo war ñi ñu dénk dëkk bi tey ji am ñu ay administrateur ndax la leen di àtte dëgg la àtte na àtte àtte àttewu na ci réew mi mais dafa am une particularité particularité mooy ñoom dafa am viatique bu ñu leen jox ne leen mbooloo maa ngoog yéen a yor yéen lañ jël jiital leen waaye fexe leen ba doon ay nitu yàlla loolu la wax ndax sëñ bi nee na fii képp ku fi ne nitu yàlla nga war a doon nee na nag bu ko kenn jombalee boppam nee na taalibe googu képp ku ci sax it loolu dong ngay mujj doon ana ku ko bëggul si nun kon fàttali ki nag li tax mu am solo mooy ñun al insaan lañu ay nit lañu ñuy fat ñuy fàtte wax nga yonent yi bu ñuy sonn waaye nun ñëpp yàlla dafay ñëw di fàtte ñaata téere la wàcce ak fàttali rek la fàttali googu mooy dikkaat ba ci ñi fi jaar ñépp ci xalifa sëñ Tuubaa te benn kàddu doŋ la waaye wax yi nii rek ak waxtu ya ñooy wute waaye lépp fàttali la kon tey nag fàttaliwaat nañ ñu li nu boole ak sëriñ bi mooy ni dañoo laxasu jaayante ak moom moom sëriñ bi doon ni sëñ Abdoulaye wax ab xaan yallaahu bil muxtaari mujizatan bi bihi li sama fawqal buraaxi sara yàlla bàyyi na ma fi ma nekk kéemaan ci yonent bi la wax ni mu foobee yonent bi teg ko ci kaw alburaax yóbbu ko ci kaw asamaan kon nun ñu ànd ak ku mel noonu li nu war ci moom mooy ni saxaaba yi jaayante woon ak yonent bi sallallahu alayhi wasallam la ñu jaayanteeg moom war a ànd ak moom ni ñoo ñee àndeek moom inna allaha ishtari minal muminina anfusahum wa amwalahum bi loolu mooy contrepartie bi contrat bi kon bi ñu signé sëriñ bi dafa am contrepartie mooy dafa am lu ñu ci yàlla defal kon loolu nan ko fàttee waaye nag ni nu war a àndeek moom sëñ Abdou am na waxtaanam woo xam ne waxtaan wu am solo la ba mu naan euh, ba ba mu naan mu digal leen ni mu war a àndeek moom nag ñu noppee koo def morom laatar fa aswaatukum fawqa sawti nabi ba aaya ba jeex ba ca ba nga xamante ne yegg ina lazina yunaaduunaka min waa'il hujuraati aksaruhum laa yanqiluuna wala num sabaru hatta taxruju ilayhim la kaana xayran lahum wallaahu gafuurun rahiim keroog wax jooju moom boobu la ba fa mu daane leneen ñu noppee koo def moroom moom moom kon nu suñu digganteeg sëriñ bi it du sunu moroom mooy lenn rekk lañ séq ak moom mooy mu digal ñu ñu def mu tere ñu ñu bàyyi sunu ko defut Cheikh Mamadou Mountakha nee na dañuy teggi yoon bu nu teggee yoon nag réer moo ciy topp réer bu ci toppee nag kon kon nit ki mel na ni dafa dëgmaloon yoonub àjjana walbatiku teggi ko kooku amut njëriñ kon man ni ma ko mën a ni ma ko mën a déggee lu simple un bon administrateur mooy koo xam ne jëfikatu ndigal nga bàyyikatu tere nga la ñu la diggal moom ngay def lañu la tere moom ngay bàyyi biir administration noonu lay doxee te biir Tuubaa gi benn kàddoo fi am muy sëriñ bi nun nag du doo ñëw nag jaayanteeg sëriñ bi ba noppi wëlbatiku nag jël ne nag man daa am lu may joxe ci sama jëmm am leneen loo xam ne man man maa ko maa ko maa ko moom kon su ko defee nag yooyu suñ ko bàyyee xel yuy am solo la kon daal mel na ni ngërëmal yàlla la wax mel na ni barke la wax mel na nii it fàttali nañu suñ statut ñun ci biir statut Touba ñun suñu statut si biir statut Touba. jërëjëf sëñ Ahmadou euh, kàddu yi leer na leer na naññ wax ah, dëgg yàlla am na solo lool am na ci point boo xam ne bëgg naa ci des si mooy li ngeen administrateur bi rôle mooy jëfe ndigal bàyyi tere en réalité techniquement ci administration noonu lay demee dafay am ay charte yu ñuy teg yoo xam ne mooy wax ne nii lees ko war a defee soo doxee ca charte yooyee ñu ne tegu nga ci yoon wi ñu ne déontologie la. soo doxul ca charte ya ñu ne wàcc nga charte yi sanction sax mën na la ca dal léegi nag wàllu administration lu jëm ci dëkk un élu bu fekkee dañ la ne maire nga ak ña nga àndal ka leen jox ndigal ca la ngeen def mooy kalafal en fait noonu la demee ki la moo ne la yow yaa ñëw ne ko su ngeen ma falee danaa def li ngeen bëgg ana lu ngeen bëgg ñu ne ñun nangam ak nangam ak nangam lañ bëgg kon yow sa mission lettre de mission mooy la nga diggee woon ci kàdduy ñalafal nga jëfe ndigal lool waaw ah, particularité wu nag mooy kàddu yi ndigal yooyee ak baatu xemmem teef ya ak pàggu teef ya ak bëgg-bëgg yëpp dafa daje ci xalif général des mourides kon foofu benn ndigal dafa am ndigal loolee bu ñëw nag yow ci wàllu zahir rek yow da ko war a jàppee ndigalu mbooleem koo xam ne yaa ngi yewoo ci dëkk bi waaye ci wàllu baatin nag nga jàppe ko it ndigalu ki nga xam ne nag moo sañ ci dëkk bi te mooy borom kon loolu ci compréhension c'est pour ñi nga xam ne dinañ dégg Touba waaw sëñ bi dajale na euh, ñi waxtaan nag ak ñoom euh, ñu ñu ñu ñu du jéem a dugg ci xam-xam pour jéem a séparer les pouvoirs alors que c'est pas une question de séparation de pouvoir c'est plus une question de prérogative ku ku nekk la nga am sañ-sañ la la war ak lala la warut loolu nag boroom xam-xam moo koy xam waaye du du du débat populaire Euh, léegi nag dañoo bugg ñëw ak sëñ Saliou ci benn baat sëñ bi dafa wax ne dëkk bi Touba daara la waaw loolu nag dongob daara moom xëy na dana yomb ci moom mu mën koo dégg waaye ki nga xam ne moom dafa jàng nasaraan ni rek wala nekk bitim réew toog dégg gis sëñ Muntaxa mu wax ne Touba daara la kon kooku nuñ koy dimbalee ba mu comprendre concept de daara bi ak li tax a jug daara ci bu ñuy wax lu mel ni dëkk nga ne ab daara la. waaw asalaamaaleykum min jadid ñu ngi <clears throat> nuyuwaat ñëpp rek euh, euh, baat boobu baatub daara day baat boo xam ni dafa gàtt waaye dafa ëmb lu baree bari lu yaatu ndax daara <clears throat> bi yonent bi alayhi salaatu wasalaam bi ko suñ borom di yabal. Mm, barab ba mu ko ca xaarul ira fa mu ko fekk ni ko iqra foofu man foofu ngay jàppe daara ju mag ja iqra bismi rabbika lasi xalaq xalaqal insaana min alaq ndax nit buy ñëw ci kaw suuf suñ boroom da koy defal da koy da koy da koy booleek mboolem jumtukaay yi nga xam ni ci la war a jaar jëfandikoo ko ba xam li tax suñ boroom sàkk ko te loolu mooy xel mi ak xol bi walla ak ruux gi yooyu nag sëriñ bi yitteem jëpp loolu la woon mooy doomu aadama defaru xam li tax yàlla sàkk ko ba tax na fépp fu mu mës a sanc daara la ndax njëkk muy ñëw Touba Touba gi Daaru Salaam la njëkk a nekk bi nga xamee ni dem na ba taalibe ya tàmbale fa am ay njaboot jaxasoo ba tàmbale tàmbalee bari ci la ko may maam Cheikh Anta daal ñëw sanc si Touba nga xam ne jaxasoo bi booba gàllan tàmbali na koo gàllankoor ci ab liggéeyam ndax li mu bëgg dëgg-dëgg li bëgg a def ci nit ñi ak wéet rek moo ko mën a may looloo tax bi mu sancee dëkk bi kër yi nga fi daan dégg yëpp foo mës a dem muy daaru alimul xabiir fa sëriñ daam abdourahman loo nekkoon ak Serigne Mbacké Bousso ak sëñ Mandoumbe ñoom ñëpp kenn ku ci nekk sëriñ bi dafa am mession bu mu la jox ndax mm, bi nekkee ci daaray waajuram di jàng ba yàlla dogal sëñ Mamour Anta Sali làqu ba ca déwén sa ndigal mu am ci boroomam wala lim li ko yonent bi alayhi salaatu wasalaam moo wax ak moom direct ni ko nii ngay defe nii ngay wax ni ko rabbi asxaabaka bil himma wala tu rabbihim bi dar si faxat ndax am na leneen luñ miinoon njëkk loolu njëkk muy jot ndigal loolu mooy jàng ba am am xam-xam am ay diplôme mm, dem di def la nga fi fekkoon waaye nag dafa am ndigal lum jot mooy diit ni ko sëñ imaam waxee léegi ni jamono bu nekk suñ borom euh, donte sax ña jiitu woon eseguñ waaye def nañ ba seen ba fa seen kartan yam waaye nag euh, sëriñ bi jamono bi muy ñëw ku ne xam na fi réew mi tolloon ni ko sëñ Moussa ko waxee lislaam di jooy yëkkat ba génn gàddaay ci soowu jant fépp mel ni làmbaay kenn amatul xasdu li wajhillaahi kaa nga ki foore faf di jaanillaahi léegi nag bi mu sancee daara jooju Touba di fi defar murid yi di leen tarbiya di leen jàngal sëñ Daam Abdourahman Lo di jàngale alxuraan sëñ Mbàkke Bousso di jàngale xam-xam ba noppi di defar jikko yi sellal taskiya ndax njàngum kese dafa doyut ndax alhimma day loo xam ni murit bi ci bi jë bi jërut ci daara ji tarbiyawu wala bi dund murit gi day mel ni moo ko mën a xam dëgg-dëgg maanaam faawu sëñ bi ñor la dëgg-dëgg nga xam ndax xaal bi yonante bi alayhi salaatu wasalaam euh, joxe ndigal ci ñu ubbi baabu xaybar tatala joo xam ni ju ju ju ju ju réyoon la daanaka ñetti téeméeri nit kenn ku nekk dem nga ba ba fa sa kartan yam te mënoo koo ubbi Seydina Ali bi mu agsee daf ni dox leen sa àndu leen sama diggante bunt bi bi mu agsee dafa dóor rek bunt bi ubbeeku ñu ni ko yow waa yow bi ma xalaxta baaba xaybar yow ñetti téeméeri nit lañ ñun def nañ lu ne ci suuf ba léegi ñu ngi fi xamuñ ñu ñuy def mu ni maa xalaatu baaba xaybar bi quwatin jasadiya walakin bi quwatin ruuxiya mooy yëg-yëg mooy xaal boo xam ni euh, suñ borom da ko def ci man Pastef boobu moom la sëriñ bi doon def ci taalibe yi moom la doon def ci murid yi moo tax gaalam yooyu nga xam ni day diis lool moom ci boppam moo ko daan yëkkatil boppam te ñeenti ponkal buñ ko jàpp woon duñ ko attan léegi loolu nag balaa mu ko def ci yow day raxas ci yow mboolem jëf yu bon yi ñuy mm, soofi di jàngale mel ni bëgg àdduna bëgg daraja bëgg siiw dégg nga yooyu yëpp day deñ ba noppi ñu ñu doog a mën a def loolu ci yow ci jamono booba nga xam ni sëriñ bi sancoon na Touba bu ñu nee ba jamono ji nag Cheikh Mouhamadul Mountakha dellusiwaat waxaat lu ni mel. loolu ñëpp a ci war a jàngate mooy kenn rek moo fi nekk muy Serigne Touba keneen ku mën a doon ab taalibe ngay mën a doon ab taalibe nag boo nekkee ci biir daara la daara ja soxla danga ko war a def mooy topp ndigal bàyyi tere lépp lu sëriñ bi santaane nga def ca la nga man la nga mënut nga jéem ca ba fa ba fa ba fa sa ca kartan yam te xam ni loolu mooy euh, ak ak ak ak ak euh, ak taalibe maanaam kon ci wundu daanam daara loolu lay wund la ca desit mooy euh, pour nga euh, gën a mën a xam daara dangay delluwaat ci njàngaleem Sëriñ Tuubaa njàngaleem Sëriñ Tuubaa nag boo ko bëggee xam faw ngay jéem a gëstu la bind wala ngay déglu boroom xam-xam yi ndax yoon wi moom rëflewut ñoo xam ni dañuy jàngale subaa ngoon guddeeg bëccëg seen xaadim mii firnde la ci saa su nekk ak ñeneen ñu ni mel ñi ngi tasaare li sëriñ bi jàngale di ko firi ci wolof di ko xamle ni ab murit war a mel ak ni mu war a fexee ba euh, comparte comporté woon ndax léegi danga koy wax ñu bari dañ naan tuuba dafa ñàkk am ndox ci màggal gi dafa am benn waay boo xam ne ci daara yi sëñ Saliou la nekkoon moo ma ko moom li may wax ni moo ko dund dafa dafa ma envoyé benn naar ni ma dafa faatu ma ne ko loolu doy na waar di waaye mu ne ma dafa am lu ma njëkk xalaat dañoo dañ ko partagé daan ni Touba dafa bari yoo dafa tàng dafa ñàkk ndox mu envoyé waan ma ni ma kii day sëñ bi dafa faatu ma ne ah, loolu doy na waar di mu ma lenn nag laa njëkk a xalaat mooy dama mus nee na dafa mus a njàpp ndal dafa mus a jógee Touba kër sëñ Saliou gi ci Touba booba jamono neexut mook sama waajur ñoo fa bokkoon nekk sëriñ Hamza nee na dem sëñ bi fu mu fu mu masaane day xumb sëñ Saliou nee na bi mu demee njàppandal sëñ bi ne na naka Touba mu ne ko sëñ tuubaa ngay wér rek baat baatu wér la jëfandikoo nee na mu ne ko tuub ko sëñ bi day ci njaareem bi mu fay ne mag ñi daa ñëw am na ku mës a ñëw ci moom mu koy laaj naka dëkk ba nee na mu wax ca ba wax ca loo xam ne xëy na euh, sëñ bi di nettali ay xissa daal ci ni Touba war a mel ëllëg ba mu ba mu tudd ñàkkum ndox mu ne ko sallahu Euh, kooko ni ko euh, loolu de xanaa ku gàtt fan doo ko fekk sëñ bi ne ko ku gàtt fan du fekk dara kooko daanaka tëggatuñ ci lu yàgg mu làqu kon danga nga ciy jàngate ni léegi nii mag euh, Baye Cheikh Awa Ballam sëñ Fallou mii sëñ Xaadim Mbuso mii fekk na ko ndoxum Touba mu mooy dëkk bi ëpp ndox wut waaye ñun ñoo war a góorgóorlu ndax boo génnee nat baa ngi fii daa fees dell ak ndox kon daara ji warees na cee jàng ay teggiin nooy jëflanteeg sa moroomu doomu aadama nooy jëflanteeg jullit bi même ni ngiy jëflanteeg yéefar bi parce que boo amul euh, diine bu fekkee sa àlliwa soriwu ci xóotaloo ci waroo cee wax ndax saa su nekk ay erreur rek ngay def kon li ma bëgg a leeral foofu rek ku xamut daara xamoo waa daara ji ñu nekkee waroo caa wax da war a noppi bàyyi waa daara ji ak seen waa daara. jërëjëf euh, sëriñ Sa Serigne Saliou yaakaar naa ne. Euh, bayit boobu sëñ Mohamed Lamine Diouf waxoon moom moom dana dana dana dana firndeel lii nga wax ci lan moo di daara ci wa daara wa sidxin wa wara waaw wa sidxin wa wara loolu moom yaakaar naa doy na tontu bu mat sëkk ci euh, ku féttéerlu aji féttéerlu dëkk dëkk ngi nii boo xam ne jaamu yàllaa ko tax a jug dëkk ngi nii boo xam ne mbooleem xeetu transaction bu fi am wa daara sitxin ci ak dëgg lay nekk ixlaasin ci lu sel la wa waraxte lu sàmm la loo xam ne xam xàmme nañ ana lu yàlla bëgg ana ak ana lu yàlla bañ xàmme nañ lu ñu sib xàmme nañ lu ñu daganal waa dëkk ngi nii boo xam ne ki ko sanc mbooleem ku mas di jaamu yàlla def na ci loo xam ne li sëñ Fallou Mbacke wax nee kenn mësu ko cee def waaye ne bi himmate aliyat la ko defee ci yitte ju kawe diggam ak boromam dëkk ngi nii boo xam ne la ko tax a jug mooy li sëñ bi wax sëñ mun Muntaxa wax ne mooy boromam te boolewu kook dara nee na nag ci wax ji ci discours bi nee na ginnaaw nag moom boromam rek la moo ko mas a ñartu boolewu ko dara kon ñi ko yaakaar bu leen dara ñor loolu borom loolu seen borom kon nag yaakaar naa ne loolu euh, danañu may sax. ñu dugg ci ci ci bunt bi nga xam ne maa ngi koy bëgg a laaj sëñ Xaadim mooy sëñ bi dafa wax ne barke wuute na ak wërsëg barke nag ngërëmal yàllaa koy may te ñu wax ne murit saareex ba ngërëmal yàlla lay wuti kon léegi nag ana lan ginnaaw képp ku ne ci dëkk bii nga xam ne ngërëmal yàllaa ko tax a jug kon boole nañ la ci taalu bi ndax sëñ bi dafa wax ne ku fi nekk ku ne rek na nga fexe ba jàppe sa bopp dongo loolu la sëñ bi wax waa dongo boobu nag ana lan mooy li nuy xaar ci moom ci doxalin moom mi sàkku ngërëm sëñ xarim bismillahi rahmaani eh, suñu asan ñu ngi lay ndokkeel laa di ndokkeel suñu saaliw ak sëñ eh, Diouf ak sëñ suñu eh, suñ Lamine am di wax ni comme li nga wax ki fi nekk ci biir dëkk bi di taalibeeb sëriñ bi wala muy soppeeb sëriñ bi ndax sëriñ bi moom lam waxoon yàlla rek defal jirim yépp ñu fàtte seeni baay ngir man loolu la waxoon defal jirim yëpp ñu fàtte seen baay ngir man te na may def man mooy ngànk ci téere bi comme gumba gu téye ci yatu ko koy womat maasikan bil kitaabi maska daririn bi yadil xaayidil basiril muhini kon loola mooy suñ suñu saar yi wax léegi rek kilifa yëpp wax ko mooy kon li ñu am am nañ ko pare moom ki ñu am am nañ ko pare fañ jëmit wax nañu ne nañuy def ba àgg fa la lay musiba kay mooy toog fi nga toog jàpp ni àgg nga te fekk téyoogoo ci aw yoon waaye boo xasee tegu ci yoon wa rek man saara man saara ala dar bi wasal ku aw ci yoon wi àgg waaye ñàll yoon ku ci àgg ku ci aw xaaxaam yaay tax doo mën a àgg te mun Muntaxa li muy junj ay waxam ku amul damay wax ni ku déggul usulul fiq doo ab philosophe ñaare mën nga cee réer bañ koo dégg ndax kersa gi àgg na foo xam te nii li muy wax lépp da koy junj day wax a yow nga xam ni yow mii bu paree nga xam yow mii la doon waxal xam yow la doon waxal waaye kersa ko waraloon loolu méthode yonente bi la am na benn bis ay nit ñëw këram laaj nan lay jaamoo yàlla ñu wax leen ko kenn ki daal ni man dootuma takk soxna. kenn ki du may julli dootuma sëlmal kenn ki su may woor dootuma dog ba mu déggee loolu dafa wax ni dafa xëy daal ni man de may yonente bi damay am soxna damay nelaw di yeewu damay julli di sëlmal damay woor di dog ku bàyyi sama sunna nag bokkoo ci sama xeet te ñett ñooñu xam na leen bu baax a baax waaye tudd seenu tur loolu moo dal suñu Muntaxa ci ci discours bi ñi muy waxal xam nañ ñi muy waxal bu baax a baax ndax li mu wax dafa leer hmm. mooy sa laaj bi hmm. ku ci dëkk bi na nga xam ni wut yàlla moo ñu fi indi. ak ngërëmul suñu borom. noonu la ñuy dimbalee sëriñ bi. waaye képp kuy wuti yàlla pare ne ci àddina jàpp ne da ko am na nga nax sa bopp. loolu la bëgg a wax ndax nee na ku fi nekk di uh, wuti àddina rek jàpp ni moom rek moo fi moo fi nekk. bis dana ñëw nga xam ni àddina rek nekku fi. bis dana ñëw nga xam ne li misli hada fal yaamal aamiluun li mat a uh, puukarewu li mat a réyal mooy topp ci yoonu suñu borom wi. kon ki fi nekk bëgg ngërëm. su ko bëggee na fexe ba xam lay may ngërëm mooy jox doxee ndigal bàyyi tere lépp loo dégg ñu sëñ bi digle na ko xam nga boo déggee eh, sëñ bi waxoon ni murit saadix dëgg dëgg dëgg day mel ni almayit bay na day xasi mu xasil eh, maanaam kii kii kii kii faatu bañ koy sang ba ko sëñ Tuubaa di wax ku mel ni suñ Muntaxaa mi moo taxoon ni wax. Sibla nett na sama maam suñ jaayee ni ko. bis bi ma njëkkee doon suñ tubaab yëg naa ci sama bopp gis loo xam te ni mun ma ko nettali doomu aadama kon loola lu lu mbir la moo xam te ni ki fi nekkal suñ tubaab moom lu mu ñu wax suñ ko defee mooy li ñuy jariñ suñ ko defu tamit mooy li ñuy lor te dégg nga lam ca wax ku fi nekk ci dëkk bi xam danga war a xam li la wuutale ak ñeneen ñi loolu wax na ko différence bi nga bi la wuutale ak ñeneen ñi mooy ñeneen ñi moom xëy na ci lu baax lañ nekk de waaye ñun différence bi ñu wutale ñoom mooy ñun liñ yor buñ ko sàmm ci suñ kaw la jëmaat ndax ngërëm loolu nga laaj nan la am murit def ba am ko weesuwul li ñu wax rek mooy mu xam ni lay maye ngërëm la mooy topp bëgg-bëggu sëriñ bi te bàyyi bëgg-bëggam moom ndax suñ bi moom bëgg-bëggam ku ne xam na ko mooy àgg mooy yàlla ak yonent bi moo tax mu ni axastu du yaaw zaadilil jinaan wan qaadalil hawa wali safal jinaan maanaam euh, bu dee lii lore ci àddina muy bëgg àddina ak bànneex bànneex moom yàlla def na ko mu wommatu topp ma moom moomay topp moom ba ma ñaane yàlla ni ko ah, amit xawaaya manaam manaami rayal bànneex ci man waaye néewalal samay nelaw kar naa moo topp gaa ñi sax fi ne nii ndax suñ tubaa lu ñaan da nga ko gis kenn mënut a nelaw guddi fi ne daanaka te boo xëyee war a dem ci soxla yi su ko defee kon loolu foofa lañ fay déggee mooy ginnaaw sëñ bi moom bànneex womat na topp ko àddina yi lim fi jël lépp ma yóbbalu alaxir rek kon boo defee àddina muy sa kër nga jàpp ni maanaam fi nga war a amee lépp da ngay xëy bis rek la nga woon defar dara mënatu ci ñun la euh, jaaj gaa nga ne nga nga wutali suñu borom loolu la suñu muntaxaa di junj waaye nit ñi nag amuñu dégg li sëñ bi wax léegi képp koo xam ne ab taalibe nga war nga ab ab murit war ngaa xam ni yoon wi dox maanaam sa sa sa nga mën a am ngërëmal suñu borom waaye bu fekkee léegi daa am terme bu xew bu doy waar su su sociaux yi murit laa waaye. loolu ku koy wax rek war ngaa xoolaat sa bopp murit la waaye diw laa àndal murit la waaye waaye nangam nga xam da ngaa dem ba sa opinion politique gënal la sëñ bi bu sëñ bi waxee loo xam noonu la war a waxee sax la la neexut sax nga ni sëñ bi nii la waroon a waxee loola ndax nit dana ci taxaw ba pare bi am ngërëmal sëñ Tuubaa mënta nekk suñu maam yu baax yee day la sëñ Tuubaa waxoon rek dañoo boole woon ak moom nee na dañoo dama fay fekkoon nit ñu gore ñuy bay ci ab tool ñu gis ma ca biir tool ba ma gën caa jàmbaare ñu bàyyi lañ doon def ñëw booleeg man booleeg boobu mu waxoon nag nga xam ni ma ku fi nekk rek la la ca boolee mooy sa maam daa toppoon sëriñ bi wala nga dem ba yeewu ñëw topp sëriñ bi loolu nag war ngaa xam ni kon la mayoon mag ñi lañ am mënoo aw ci weneen yoon wala may la la mag ñi amoon te jaaroo ci yoon mag ñi awoon loolu donc mooy mbir mi waaye bu fekkee jàpp nga ni moom yow am murit nga waaye di wala gën sëñ bi mooy mooy wax ji daa àggul la am murit la waaye li sëñ bi wax moom dé noonu mooy du noonu rek te am na mag mu a ci kenn ci kilifa yu mag yi ci doomi sëñ bi sax la doon jaxase wax ko ni ko euh, xanaa xamoo ni euh, sëñ bi nekk xalifa yéen a yam yéen ñaan ñëpp ay sondeel ngeen doomi suñu diwaan yëpp ay sondeel lañ bi laat sax la woon du ko tontu ni ko xanaa xamoo ni sondeel bi bi bi tàkk bu jigéen bi bi tëkku <laughs> da koy ruyal da koy da kon loolu la maam euh, ab murit moom li njëriñam mooy topp sëñ bi def ay ndigalam bàyyi ay tereem ndax ku mel ne suñ muntaxaa tey ji nga gisal ko sa bopp suñ muntaxaa aajoom suba ba ngoon yaakaar naa bu ko woon xool du mat fukki junni aajoom suba ba ngoon du mat loolu kon li muy li muy def nii pour lan la murit bu nekk war naa taxaw laaj loolu coono bi muy sonn nii suñ muntaxaa dimanche mu dem ko suñ tubaab recevoir nit ñi léeg mu dem fekki taalibe yi léeg-léeg mu dem fayen léeg-léeg dem fayen lu ne mu koy def di sonn ci coono boo xam te ni tubaab bi bu doon tubaab yi ñoom dañu di jaaxal ndax di sonn ci investir ci dara pour lan la kon kan moo tax muy def loolu ñun kon ñun tamit war nañ koo delloo njukkal ba mu tàmbalee wax ak ñun yàgg na waaye summoon bokku moon am bi mu foofu laa laa yubsiruun laa yaqiluun loolu moo ñu dal maanaam dañoo mel ni koo xam te ni mi ngi wax mi ngi wax toujours ñu koy dégg hmm. waaye li muy wax dafa mel dañ ko mënta xam la tax mënuñ koo xam nag ak gàllankoor la gu ne ci ñun koo xam ne war nañ ko faj suñu bopp mm. gàllankoor nag mooy yées mm. ndax lii gàllankoor nit ba du àgg bokk na ci ñàkk dégg waxi xakiim mm. ñàkk dégg wax waxi ko am xikma kon lii mu ñu waxaat nii lu mat a bàyyi xel la mooy koo mën a doon ak loo mën a doon boo agsee ci biir kër sëriñ bi tënku ci ndigalam rek mooy mooy sa mucc waaye boo tënku ci ndigalam yaa ngi mel ni bëyuñu boyal rek boo génnee léegi bukki yi lekk la ab eh, murid laa waaye bu amoon problème léegi nga gis sëñ bi la jéem a wooy kenaan murid laa waaye fi ne bu manifesté woon mbaa mu coow bañ jàpp ko ay mbokkam sëñ bi la ñuy woo waaye bu génnee daal ni murid laa waaye loolu <laughs> loolu nag moom eh, mbir la mu des li nga wax léegi nii ñi nekk ay taalibe sëñ Tuubaa ba pare fas yéenee ànd ak koo xam te ni fu mu toll mi ngi xas sëñ Tuubaa ku njabootam kooka war naa xoolal ak taalibeem ba xam doon man de du xaritoo mbaa may ànd mbaa may soppante ak koo xam te ni day xas day wax ci lu bon Sëriñ Tuubaa ku attan na taxaw wax ni addiya ji ñu yóbbul mun Muntaxaa euh, ger la ñu bàyyi la noonu nga taxawaat ni blanchissement d'argent la ñu bàyyi la noonu nga taxawaat ni murid yi amuñ xam-xam parce que xeex seen lépp xeex la ak dóorante ñu bàyyi la noonu nga continuer di wax su ma ko mënta faj damay maanu ci waaye du ma ànd ak yow. jërëjëf sëñ euh, wax ji moom leer na. Euh, am na nag lu ci lu ci lu ci lu ci comme li nga wax maanaam ku ku xamut philosophie ak ak ak ak ak ak ak ak ak ak suufiyu maanaam du du du du yomb ci yow nga mën a dégg waxi si Muntaxa waaye dégg nga li mu wax lépp ci ne yoon wi ni la mas di doxe wax dëkk bi li ko sanc wax sëriñ bi ni mu ko sancee daf ca teg ca mujjantal ga wax ne waaye doxin woowu ñun jigadiwuñu ah ci waxtaan wi nee na jigadiwuñu waaw léegi loolu nag loolu nag c'est c'est capital pour pour pour tey jii xam nga jàkkaarloog ay administrateurs ñoo ne ne bi mu doxee ba léegi 1888 ba ren jii 2022 mu leer la ne la ko dox lépp ci sëriñ bi la mu ne la jigadiwuñu ça veut dire que tout le processus de développement loo xalaat rek moom am nañ autonomie bu nu ko war a mane ak durabilité autonomie mooy ku dem ma dem. ku demul ma dem durabilité mooy lu ñu naan murit amul tànk ginnaaw waaw loolu loolu nag balaa bëgg ñëw ci ak sëñ Mamadou Lamine ci les projet de développement Touba xam nga Touba def nañ fi tubaa def nañ fi juma tubaa am na yeneen yeneen yeneen yeneen nan la amee ndax ci politique la amee ndax ci ku ñu fal moo ko def ci ci lan la amee ba ki nga xam ne mi ngi déglu mu xam lu sañ ci ak li ko indi fii. ok jërëjëf euh, sëñ Assane ñuy sant bu baax sëñ Saliou ak sëñ Xaadim ci leeral yu am solo yu ñu indi euh, yaakaar naa indi nga laaj bu am solo boo xam ne euh, sëñ Muntaxa daf ko tontu ci biir ay soññeem dafa wax ne yëngu yi xewoon fan yii Touba doxe na ci noo xam ne bokkul ak ni ñu doxee feneen ci réew mi te tàggalewuñu ak Sénégal ndax Touba rek ngay gis feneen foo dem ci commune bu mu mën a doon ci Sénégal nit day bokk ci list wala parti politique wala liste départementale wala indépendance wala mouvement citoyen ñu bind la ca ngir soog laa mën a fal. kon kooku soo fa demee ginnaaw ñoo la abal ay bët ah sañ ngaa xool fi ñu bëgg. Touba rek ngay toog suñu asan boobu ñëwee la euh, sëñ diw de nee na. sëñ bi da koy laaj ñu koy teewal yow la yóbbu yow boo ko fenn kon yow kenn falu la kenn tànnu la sëñ Tuubaa mu la tànn <laughs> nit nag eh, sëñ Abdoulaye doon wax naa nit boo ñëwee ci moom ne ko dama bëgg nga jur ma ne na aw santam ngay wuyu kon fii koo gis mu ne fi teguñu la ci benn list kon yow baat bi ki ko yor mooy kenn ki fi nekkal sëñ Tuubaa mooy sëñ Mouhamadou Mountakha moo ko xool ba mu doy ko mu jox ko sëñ Sidi mu sëñ Abdou mu seet ko ba mu doy ko mu jël sëñ Abdou ka jiital ko ñi nga xamante ni ñoo ko war a wéttali ba ma téeméer kilifa yi nga xamante ni seen cër toll na noonu ku ci ne mu yónnee fa ne la jox ma ndaw nga jox ma kon ñooñu ñoom amuñu amuñu maanaam ku ñu ameel amali ñu bor kenn sëñ Tuubaa rek lañ ko ameel amuñu ku ñuy xoolal keneen amuñu ku ñuy sàmmal intérêt keneen ku dul sëñ Tuubaa loolu sëñ bi loolu loolu sëñ bi jublu mooy ñu xam ne euh, fii li ñu fi indi mooy sëñ Tuubaa loolu nag euh, dégg nga sëñ li mu wax nee na nit dëddu àddina du tee sa cër bi nga war a am ci àddina nga am ko <laughs> Tuubaa mooy misaal mi ndax Tuubaa sëñ Tuubaa bi mu ko sancee da koo da koo moom sëñ Tuubaa moo ko tàmbali sëñ Mouhamadou Lamine Baara Mbacke mu Cheikh Mamadou Fadal nee na bi ko sëñ tubaa sancee sëñ moo roxoy busu sëñ tubaa moo ko fi yebaloon ci dëkk bi liñ daan laaj muy impôt muy galak moom la ko sëñ bi digaloon moo ko doon collecté kon nga gis ne sëñ bi moom <laughs> dafa mës a nekk régalien ku respecté li yoon tëral ndax jamonoy sëñ tubaa la fa yebaloon sëñ moo roxoy busu ne ko waa dëkk bi nañuy joxe galak te loolu tey nit ñi moo la ñuy soññe <laughs> muy impôt sëñ bi moom utaloon ko sàkkal ko koo xamante ni looloo ko tax a jóg sa Amsatu Jaxate mu yebal ko mu nekk fi di taxaw dëkk bi kon sëñ bi moom noonu la ko tàmbee sëñ Mourou Moussa bi mu ñëwee loolu la fi fekk ñi fi nekkal sëñ Tuubaa ñëpp euh, li lay won nag ne ab murid dafa war a tënku ci ndigal bàyyi ki nga xamante ni moo fi nekkal sëñ Tuubaa mu yor baat bi yor kilifteef gi di joxe ndigal di joxañ li ñu war a def lu ñu jaaxal ñu ñëw diisoog moom lu mu digg la ñu def ko ndax suñu borom def na li kàddu mën ñun ñëpp suñu kàddu mënu ko li li li li mën ñun ñëpp suñu doole mënu ko li mën ñun ñëpp bu ñu daje woon suñu baat mënu ko te wax nga sànq projet développement yi Touba loolu rek ko àggale fii suñu Modou Moussa bi mu ñëwee di ut autorisation ngir tabax jumaa ji tubaab bi autorisation bi ñu ko jox ci quatre cent ectare la yem mooy fii jumaa ji nekk rek ba ba ba ngay bëgg yegg Daaru Xuddoos <laughs> ne ko lii lañ la mën a may <laughs> mu a leen baax na waaye tey dëkk boo xamante ni tiitre foncier la ci trente mille hectares amul ci monde bi waxuma la Sénégal de wëral monde bi ba mu daj nga xool ndax tiitre foncier bu toll nii bi tubaa am benn titre foncier bu nekk ci turu benn nit muy Cheikh Ahmadou Bamba am na ci am na ci monde bi amul fenn. dëkk boo xamante ni dëkk ci dëkk bi ci boppam <laughs> mooy titre foncier loolu amul fenn te loolu sëñ Tuubaa am na ko te sonn ci te loolu ñun ñëpp bu ñu boolewul suñu kàttan mënuñu ko te loolu ki ko def xalifu sëñ Tuubaa la lotissement yi boo ko jëloon euh, sëñ Abdoulaye bi mu wootee ngir ñu dëkk Touba ay année 1975 dafa ne dafa ne lotissement mi junni parcelle njëg def naa ko addi sëñ Touba ku ci bëgg boo ñëw ñu daggal la kër te dee soo laaj fukki dërëm sax demal ci yeneen dëkk yëpp am na dëkk yoo xam ne mètre carré bi ci boppam dañ naan mi ngi ci nangami million fii soo ñëwee ñu daggal vingt cinq sur sur sur sur vingt wala wala wala wala cinquante sur nangam euh, boo dee kilifa sax ñu boole ci am pinc foo mën def jumaa ak lépp te dee soo laaj fukki dërëm loolu ñun mënuñu loolu sëñ moo ko mën loolu ci barkeb sëñ Tuubaa lañ ko mën a amee bu dee ndox forage yi li ci sëñ bi mën ci kàttanam forage bi ñuy inauguré fii bi sëñ Fàllu njëkk Euh, am ñu def ko daaru man naan boobee ndox jafe woon na Touba lool. bi ci Sëñ Abdou Lahad tegaat 1972 ba ñu koy ubbi euh, leeral na ci lu bari marché bi ba ñu ko defee ba mu koy laaj sax dafa ne woon nguur gi man ab marché su ma koy laaj lekk ko taxul naan ko taxul dugg ko taxul ndax ab ja bu noppi woon tey jii du man may waaxu di tàbbi cib ja da ngeen di buntub laajukaay ma war leen koo laaj war koo laajal mbooloo mi di leen ko laaj. <laughs> waaye loolu tey ñun kenn mënu ko ba mu ko waxee loolu màggal 1976 la mars 1977 inauguré nañu marché bi <laughs> ko am kàttan kooku loolu nag du fi jóg soo ko toppoon noonu day gudd waaye lépp ba ci sécurité bi ñu waree def gendarmerie Touba euh, moo ko sàkku te boobu Touba boo ko xooloon ci circonscription administration ak yu ni mel dañuy jàpp ne warul am sax post waxuma la di am brigade moor ñu def ci brigade spéciale ba mu demee ba tollu ci am police bi ko sëñ Saliou Mbacke sàkkoo soo demee brigade euh, commissariat spécial ngay gis escadron bi yàlla dogal na euh, ki nekkoon euh, commandant au commandant de la justice militaire ba mu ñëwee di ko sàkku ci Cheikh Seydou Mokhtar yàlla dogal na reportage bañ ci yabal almouride man lañ yabaloon maa maa fekkee waxtaan bi kenn du ma ko nettali mm. <laughs> nañ ko sàkkoo ak fi ñu bëgg ñu def ko fa ak lépp kon loolu kàddu sëñ Tuubaa moo ko mën kon moo ñun su ndox manqué nga ni damay grève loolu baax na ci yeneen dëkk yi damay bañ tudd benn dëkk hmm. waaye amul place fii hmm. su ay lamp manqué nga def ni da ngaa war a génn rajo boo jot dem ci ku la tàll micro lu neex wax te sëñ bi ne fi nga am chef de quartier am kilifa goo xam ne moo yilif baat bi loolu sëñ bi wax ne ku nekk Touba dafa war a nekk model hmm. ñun am na loo xamante ne waa dëkk sàngam sañ nañ ko bu la neexee tàll ay pneu sànni ay xeer takk morso yu xonq sëñ Touba dafa weesu loolu kon yàlla bëgg na ci li nga xamante ni maanaam moom la moom la moom la moom la bëgg ñu def ko mooy wax nañ dëkk bi daara la. Mm-hmm. daara moom dañ fay jàngal nit. Mm-hmm. dañ ko fay yar. Mm-hmm. dañ fay jubbante ay jikkoom. dañ koy tarbiye dañ koy jàngal ak njub dañuy tax fu mu dem gën fa te kenn du ko gën. kon loolu kuy dëkk Touba rek te sàmmonteeg dëkk yi war naa mooy def loolu ci yoon. waaye loolu lépp nag ñu di ko def ni ñu ko war a defee. di nekk ci ginnaaw ki fi nekkal sëñ Touba tey jii <laughs> lotissement boo ko suñu Fall di def jafe na lool 1950 yi mu defar plan jox ko sëñ Cheikh Mbacke ñu rëdd ko loolu dox nañu ba 1996 àddina bépp daje di seet dëkk bu gën a rafet bu gën a aw yoon ni ñu ko rëddee ak ni ñu ko dëkkee ñu ne Touba lañ jël muy some Habitat 2 ci Istanbul mm. te loolu eh, kenn kenn xalaatulu ko ki fi nekkal sëñ Tuubaa moo ko xalaatal boppam hmm. kon sëñ bi moom day mel nii bokk na ci li nga xam ne it man jàpp naa ni ñun ñun ñun ñun dongo yi war nañ ci soññante waat ci suñu biir hmm. mooy sëñ bi dafa war a def nangam hmm. ak sëñ bi dafa war a wax nangam wala sëñ bi xanaa kenn kenn kenn waxu ko nangam wala sëñ bi xanaa yëgul lii mooy li suñu xaayam doon wax bu sëñ bi waxee nga ni lu tax mu lu tax mu war a def nii lu tax mu war a lu wax lii euh, sart mu di saay na bokk na ci tarku ixtiraat mutlaxan kon loolu moo ci mu walaw bi baatin kon loolu moom <laughs> moo wax ko ci réseaux sociaux yi ak tëju sa néeg ak tëju sa néeg nag soo ko ñëw waaw kon salabul ixtiyaar moom boo ko defee yow ci ban liste ngay bokk <laughs> ban candidat ngay wote moom moom doguma la sax waaye maanaam li li li li nga xam ne ci biir sifaatu saarixi murid yooyu lu ci lu ci lu ci marquant la ci li tax yoon wi doon la mu doon ba fii ñu toll mooy xay su warat waaw xay su warat moom mooy mooy jikkoy jikkoy ab taalibe dongo moom digle nañ daal moom uh, fanoo doga daanoo nga kabar xay su warat waa mi nga waaye li ñu bëggoon a mooy ñu delsu ci ndigal li te xam ne dëkk bi bii di Touba du dëkkub avis populaire maanaam wax sa xalaat moom doxiwut fii fii ndigal la ak bàyyi tere ak koo man di doon li nga xam ne boroom dëkk bi moom la bëgg ci dëkk bi kon loolu mooy li nga xam ne dëgg-dëgg ñun moom mooy li nu ci war ñun mooy nun taalibe yi ak nun ñi dëkk ci dëkk bi mooy respecté li nga xam ne borom dëkk bi moom la wax ne moo tax mu sanc dëkk bi muy jaamu yàlla te bañ ko booleeg leneen jëfe ndigal te bàyyi tere kon damay jox sëñ Ahmadou ñaan mu def euh, kàddoom bu mujj euh, nga xam ne danañ mën a del si tëj ci ni nga xamante ne noonu lañ ci xam nañ ne waxtaane tomb yëpp du fi xaj waaye bunt yi nu ubbi dana may képp koo xam ne borom xel nga képp koo xam ne aji sàkku xam-xam nga képp koo xam ne it gëstukat nga nga mën a xóotal luy tax njariñ yu yaatu yana ca biir waxtaan ya ñu mën ko jot li ba ñëpp mën caa jote kon sëñ Ahmadou ñu bàyyi la nga euh, kon xam naa damay jéem a euh, tënk li may wax euh, fàttali ni cadre bi ñu ne Touba la tudd Touba nag mooy boo fi nekkee mel na ni danga nga war a xam li la war ndax jagoo gi nga xam ne sëriñ bi moo ko jagoo suñ borom rafaatal ko ko nga xam ni yow doonoo ci dara. boo ko màggalee mu màgg boo ko màggalut du ko teree màgg suñu laata ko doon wax ndax indi arab bii la waxoon mu taal ci teg ne te fu lëf baaxee fu dul fa yàlla baax ga sottiwul kon ñun dafa mel ni euh, li mu waxoon ni booyalee suñu watalee suñu dañ ñoo wutal dañ ñoo tënk jénguñu mooy ni ab jullit ci boppam sañu ta def lu ko neex rawatina ab taalibe murit kon ñun njukkeel gi nga xam ne war nañ koo njukkeel sëriñ bi mel na ni dafay duggaat ci taalibe googu ñu nga xam ne moom la ci moom lañ war a dox mooy bu dee ñun suñu lu lu lu nu xusi ñu dellu ci sëriñ bi lu nu metti ñu dem ci moom jàmbati ko lu doxul ci dëkk bii dañu ñu féetewoo fa xam nañ ni li mu ci mën kenn suñu mënu ko ci kon ñun dañoo war a féetewoo di ko sant ak di ko njukkeel nin ko bara mën a njukkalee nag mooy doom bañ a fanaan àllu xaysu warat bi nga wax mooy saa yu waxee rek nan ko sagalee lu tollook sagal suñu bopp yit lu tollook jëfe ko ndax kat ànd ak sa sëriñ mu mat lépp ñëpp xam ni yow toppoo ko kooku gàcce la ci yow mi nga xamante ne yow yaa ko topput kon mel na ni woote gi mu woote mooy daf ñu laabiiraal pour ñu xamaat sunu bopp xam sunu digganteeg moom xam ni ci daara la ñu nekk innaka bil waadil muqaddasi tuwa yaakaar naa Muusa lañ ko waxoon bañ ko simmiloo ay dàll foofe ñuy wane ni barab boobee muy nekk daara la moo tax ñu ne ko nii nga fiy doxee lii moom mooy yoonu fii kon nag doonte la yow mi dama laa bëgg a yónni fii nii nga fi doxe ko foofe loole lu am solo la lu mat a fàttali la ci daara aduhooka an tajaluhu daara tuqaa la wax walla ilmi wa diini wa daara irtiqaa kon euh, ragal yàlla leen fi lees yi sàkkoo xam-xam muy tomb bu am solo nag te mu tomb boo xam ne dafa ànd ak mission wu sëñ Mouhamadou Mountakha ba muy tabax ab université jàpp naa ni fi mu toll nii borom kër yi chef de village yi délégué de quartier yi kenn ku ci ne war ngaa taxaw xool ndax ñi la wër yee nga leen yeegu tollook ñu xam ni kàddu sëriñ bi mu ne su koo yemaleeg lenn kon kenn ku ne war nga ci liggéey liggéey bu am solo ndax nag xam-xam nag ci la nit ñi rawantee boo yeewul ñi ci lii rek ñeneen danañ ko yee ca leneen te loolee ñu koy yee nag day mujj doon gàllankoor ci biir lii ñoom ñu nekk day mel ni dañ fee ne ba noppite te newuñu fi te loolu nax seeni bopp lay doon kon nag mel na ni challenge bi nga xam ne yoon bi war na ko relever ci ndaw ñi ñi nekk ci kilifa ci yoon wi li ko dalee ci borom kër gi chef de quartier bi chef de village bi ki nga xam ne sëriñ la du dëgg mooy xam xamal nit ñi xam-xam xeetu xam-xam yuy tax ba xam-xam des ci képp ku ko képp ku ko képp ku ci ne da ngay gën a jàpp sëriñ bi waaye doo ko gën a doo ci doo dellu ginnaaw ci jàpp gi nga ko jàpp kon challenge xam-xam moom bëggoon naa ñu gën ko bàyyi xel ah xaaj na daanelee ci nii euh, déglu naa président Abdou Diouf benn bés muy wax ci diggante Touba ak ñi nga xam ne ñoo jiite Touba muy xalifa yi ak nguurub Sénégal waaye daf ko définir comme benn partenariat public privé bu am solo la ko mu ne partenariat public privé boo xam ne tax na lu bëri ñu réaliser ko kon da gis ni état dafa nangu ci rub sëriñ bi da ko nangu xam ko donc gis ni tey jii boo génnewoon li nga xam ne tey xalif généraux yi ñoo ko fi def ak ànd ko ki dongo dëkk bi day doon day dellu doonaat ab manding kon mel na ni nit nag bu fekkente ne da ngay joxe dépense fenn sañ ngaa wax nag ni lii lañ may toggal jërëjëf. Eh, jërëjëf euh, sëñ Ahmadou euh, jërëjëf sëñ Mouhamad Lamine Diouf jërëjëf euh, sëñ Salihu Mbacke jërëjëf itam sëñ Xaadim Imaam. Euh, ñuy wax rek ne ñi ngi doon euh, amal fii waxtaan woo xam ne ci càkkutéefu Serigne euh, Abdou Samad Mbacké mu Serigne Chouaïbou Mbacké ci teewaayu tamit sëñ Cheikh Bassir Mbacké mu sëñ Abdou Khadr Mbacké porte-parole khalife général des Mourides nga xam ne yàlla dogal na tey mu gane si sëriñ bi fii lépp nag ñu amee ko ci mbégteem sëriñ bi moom sëñ Muntaxa mi nga xam ne moo doyloo sëñ Abdou Samad ci bépp xeetu xalaat boo xam ne xam na ne léppam xalaat buy defar la euh, loolu nag euh, ñun liñ ci bëgg a tëje ci bunt yi mooy fàttali fàttali sëñ bi message fort bi mu joxe message bi ci jiitu mooy ñu xam ne sëñ bi li mu wax ne bi mu fi nekkee ba bañ ko noppee gis nekkul ci lu dul boromam te boolewu ko dara saa c'est le message fort diggante début waxtaan wi ba ca fin ba loola moom mooy fil conducteur bi wax na itam ne dëkk bii moom la ko tax a jug moo jaamu yàlla waaye leeral na itam ne sëñ bi moom dong moo ko def dañ ko fee fekk si kon ña ko fekk si it dañ ko fekk si te la ko neex te la ko neex mooy la neex boroomam wax na itam ñi nga xam ne ñoo aju ci moom ni ñu war a jariñoo ci sëriñ bi ci kaw tënku ci ndigal li waaye wax na itam ñi nga xam ne ñoom lañ dénk liggéey administration ñu xam ne mënuñoo jàppe seen bopp lu dul ay dongo ginnaaw bu ñu nekkee ci biir daara te daara ji mooy tubaa daara jooju nag wa daara ixlaasin wa sidqin wa wara wa daara sunnatin wa manjan min bidaa waaw daa daaray sellal la daaray dëggu la daaray sàmm la yi sax ci sunna la daaray yi daw lépp loo xam ne bidaa la daaray daaray sàmmonte ak ndigal yàlla la te loolu mooy tubaa kon ndigal loolu moom lañ jot ci sëriñ bi moom la ñuy dundi ñuy ñuy ñuy ñaax nag ñi nga xam ne dañuy liggéey ci média communication ak technologie ñu bañ a def complex ci àddina ni muy doxee ba waral loolu dañ leen fàbbi caméra Facebook réseau sociaux internet maanaam du loolu mooy tabax dëkk du loolu mooy tabax doomu aadama loolu ay jumtukaay la yoo xam ne dañ cay sukkandikoo ci sukkandiku ca la sos dëkk ba muy jaamu yàlla ngir mën a defaru loolu nag dafa gaaw ci réeral doomu aadama ci jamono ji ñu toll ba waral sax nit mën naa nekk tubaa jàpp ne dafa yor télé wala rajo ba war naa mën a waxe ni ku nekkoon fee ci dëkk boobee war a mën a xuloo ci loole te xam ne fii booy wax kàddu booy wax képp war nga ko booleeg mu doon kàddu jaamu yàlla ba noppi looy def def li maam Cheikh Ibrahima Fall wax ne yoon wii nu nekk jéem a defar ba defaru la jéem a defar ba defaru looy wax na doon luy defar lu yàq daal bokkul ci dëkk bi moom ndax du dëkk bu nu yàqoo dëkk bu nuy defaroo la waaleykum salaam wa rahmatulahi taala wa barakaatu jërë ngeen jëf. war na noo gën a xam suñu bopp bu baax. te xam ne sëriñ bi. te xam noonu ma ko waxee woon. boolewul ak dara ak boromam. wo loolu moo tax bi muy ñëw fii ci dëkk bi àndul kenn moo boroom rekk ànd nekk ci àll bi ba kenn xamul fu mu nekk ba sunu borom won ko fi mu ko bëggee gannaaw ba la door a feeñ kon nag sunu warteef lun mën a gën a xam ci sëriñ ñu xam mën a gën a xam ci sëriñ bi ñuy koo xam jéem koo nekkal ci ni ko bëggee jéem koo nekkal ci nim ko bëggee kenn ku ne nun kenn ku ne ci nun ab dongo ab dongo dong la war a def boppam kenn ku de ci nun ab dongo dong la war a def boppam muy man muy keneen nag ab dongo dong la war a def boppam rawatina nag ci dëkk bi